برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ميكروبي waaye nelaw dama bàyyi teew. nee na waaye muy gërëm doon bàyyi teew fii liggéeyam bi. lu ma ko la ñu ngi si wér. lu ñu xam rek ñu ngi si benn. gërëm gërëm bu amul am. waaw maman Diallo rek ñu ngi si wér. mooy li nga xam ne yéen a ngi benn. amiin yaa rabbi amiin. amiin yaa rabbi amiin amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi yàlla na fi yàlla yàggal ci barke waay. benn soppe bu ñu wax Adja Anta Ndoye xam nga lu seytaane nekk mu nekk ci te bëccëg ba léegi li mu def yëpp mu def dafa tuddee jaamu yàlla mën na ko mais lu seytaane xam lu seytaane def loxo man ci alal la man ci doole man ci ba mu ñëwee ma nga ne toog fee làmp ko yaa koy mu koy ñaanal yaa koy da ngay mu dégg. tey tey tey tey. Seydina nee na muy mu ngi beral Seydina ne ay gërëm. voilà parce que lii yëpp moom moo ko waral. Seydina nee na lu ci jaaree ne moom ay Seydina ne ay gërëm. association bi moom ak waa Daara Mass

ak seen ba mi toog gàttal mooy njëkk yëkkati àllam def ko ci jumaa yàlla dama yëkkati 2000 dollars ak 16500 CFA jox ko ba ma accès laa ko jëndee matériel boobu ba léegi nga ne ko wax loolu bu nit ba mu koy def dañ ma oo man yow ak dama ne kii daf maa sas parce que bu yëkkatee alal di ko def ci jumaa ji jox daa ko lu tegu sama loxo may naa def ci ba mu dugg ci jumaa ji kon nag boobu yaa ko defee woon Michigan bu àgg

Sacré-Cœur bi mu ko nuyoo am benn euh, presse bu nekk euh, màkk moom ma ko doon fayal weeru de at mu jot moo may jox lu may fayee Sacré-Cœur ba benn bés ma ne ma doo proposé borom ndax du la ko jaay ma proposé ma ne ma waaw dama koy jaay mu jaay ñu ko ji boobu temps xam nga ñaata

internat yi fii ñi fi nekk ñëpp amul kenn ki nga xamante ne moom da ngay fay loolu yëpp mu ngi jugee ci poche soxna si Seyda Mariam Niass ñi fii ñëw di jàng si rek ñooy ñëw mais ñi fiy joxe ay 3000 rek xam nga loolu dundalul dara suñ ndox mi ngi ñëw nekk 200000 courant tamit ñëw nekk 250 wala léegi-léegi mu ñëw nekk 150000. lekk bi moom toujours mu fekkee añ la moom dañuy sóor 15 kilos la ñuy sóor. mën nañu wax ne lu mat 25 cinq pala moom dinañ ko dinañ ko dinañ ko Maria Magnas a des rapports privilégiés avec le Coran. Elle aime le Coran

man daal am na benn jigéen boo xam ne impressionné na ma dama fàttali benn taarix bu jàngoon ci téere yi am jigéen boo xam ne dafa nekkoon ak alxuraan ba nga xam ne lu muy lu tontu sax alxuraan lay tontoo ba man mën naa oo ndaw soosu Seyda Mariam boobu tuddee ko al maratul mutakallimatu bil quran mooy jigéen joo xam ne alxuraan lay waxee baatu Mariama daa am lu muy tekki boo ci tegee sawda daa am lu muy tekki wala fi naan sooda ko xam loolu boo déggee ñu ne ma ngay liggéeyal alxuraan du la bett xaadima mooy koo xam ne fuñ la séen ngay dox ci alxuraan ngay dox benn yaa ngi koy jàngale mbaa yaa ngay wujji mboola mu woote wala yaa nga toog di ko nafar wala yaa maanaam fuñ la fekk rek yaa ngi ci moom. mais ma xaadimatu xuraan la parce que ma na alxuraan. ñim ko mokkal loo ñu tari ko mokkal ko dañu bari ci góor ak jigéen ci ay nit yo xam sax yakalu len sen école publique ñu dem ba doctorat après. bay dafa ñaanon yàlla jaglel ko karamam nek di alquran kon ni ko waxe wa taj'alna hifzaka alkitaabika alkarim karamati ila liqaika alazim deug deug karama gogu bu ci sayda maryam ñëwee. tànn li nga xam ne moom mooy alquran dëgg-dëgg rawatina mu yóbbu ko fële ca ndakaaru fa nga xam ne jafe na lool pour lim fa taxawal waxuma jigéen waaye pour góor sax taxawal ko fa lu jafe la kon bu ñëwee taxawal fa taxaw ko foofu ci ndakaar jëriñ ci doomi senegaal yu bëree bëri bëri ba nga xam ne tey ñu bëri mën nañoo toog tey ne daara Seyda Mariam moom laa génne kon mën mënee joxe exemple ci mahat bi nga xam ne moo Mawlana Cheikh Ibrahim la. alxuraan da koo jaral lu bari dégg naa ci sama papa ca Koosi samay nopp mu ne bi bàyyi di tafsir alxuraan ñu ne ko yaa sar am na doom jigéen ñu ne bàyyi fa leen ak tontu na leen borom alxuraan juddu na loolu rek doy na wax. je voyais mu jigéen ju ju am personnalité ba pare. ba daan ko gis solu ba mel ni kuy génn après téye kaamilam di jàng alxuraan aoudubillahi min asheytani irajim bismillahi rahmani irahim qaala alam aqul laka innaka lan tastatia maye sabra qaala in saaltuka an cheyin baada fala tuxsaaxibni mun naa wax ma ne lii ma ko may du suma may du suma góorgóorlu هذا ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisaab yàlla mu ne lii sama may la maa leen ko may ci lu dul benn condition alhamdulilah jàpp leen ñu tam ñu jàpp ci bi benn condition ku musa ittoo alquran la xaadimatul quran boobu mu tuddee boppam man may serviteur servitrice alquran loolu moom nekk xale bu tuuti ci la ci la dund ba ba idaayum kiyaamati nekk ci alxuraan dina sama bàyyi sant rek alhamdulilah ci laa nekk ba trop taxaw de wax na ma ne yéen ñëpp laa jàngal alxuraan la waaye yaa ko gën yaa ko bëgg loolu moo wax ci alhamdulilah sant yàlla la Seydaan nit la koo xam ne bu la yàlla booleek moom foo em rek yaa fa emale sa bopp ci moom nit la ku baax nit la ku tabe nit la ku oyof nit la koo xam ne dafa jikko dafa bëri jikko yoo xam ne mu ngi woon ci Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi koy gis ci moom dafay tooyal sama xol toujours billahi hmm? بشرى لنا جئتنا جاء السرور والهنا يا مرحبا يا مرحبا انت الحبيبه لنا واي دال سخنا سين موم باخ باي باي جي باخ موي فانداسيون اك ياي جي باخ موي فانداسيون بو باخ جيجن لا جو خامني موم مات غور جي بري ndax jigen ju joge ko fi ba elle est reconnue et connue je dis encore une fois comme une femme d'ici. sa notoriété ses actions dépassent les frontières du Sénégal et même de l'Afrique si vous trouvez Hadja Mariama Yaboy Saïda à la Mecque et que vous voyez comment les Séoudiens la traitent

وحستي من الفيض أغلى حلا ñu ne ko donn nga sa baay donn nga xalil fayda bi bi gën rëy moom la doon ci baay bëgg alxuraan bëgg na alxuraan ba ku mu yar sax danga dalay jàngal ba nga wàcc waaye bu la jàngalee ba la wàcc ba nga wàcc du du la du la delloo dalay yar boo matee am jabar mu takk la jabar soo matee am e, jëkkër mu wutal la jëkkër su ma mag fi la jàngee alxuraan ba wàcc ba mokkal alxuraan mu yóbbu ko Màkka macha allah may ko soxna takkal ko jabar mu soog mu soog kaa yeewi mu dem seen seen kër fekk nag am na métier am na liggéeyam man nag après bi sama papa bi mu résultat boobu moom ne ko du dañ ci di jox suma doom nga di jàngal alquran ci la ma man mi may jàng alquran depuis 92 ba tey jii fim fi mu jaar ak sa man laa bu dafa la jaar ak man parce que dem naa Maroc yóbbu ma def benn concours Maroc

c'est une autre dimension c'est une autre dimension même elle elle se cache elle porte un voile son vrai visage non Y'a ma fierté te war na war na siiw ba jigéen ñi xam ne bi yàlla waxee julli ñu góor ak julli ñu jigéen ba muy fukki daraja ñëpp mu mel ni daf leen a yemale yaa ma exemple la ci man daal damay ñaan pour que yàlla yàggal ko fi lool pour que nit ñi di mën di roy ci moom moom itam li muy joxe mën na tasaaro bañ ko xamee ba tey kenn musul am ndaje mu wuuteeg ndaje mu mu yàlla gërëm nga séen ko ca loola la sëñ ba doon wax Cheikh Islam Haaj Ibrahima Niass fa kullu man xadama nii laqaanii fii jannatil xuldi bila buhtaani ku mu xëyal rek jox naa la daan di wàll jànn waa léegi bu fekkee borom xam-xam ku mag ku mag yi noonu moo wax ne ku ko xëyal jox na la daan diw waaw kii xëyal yàlla di xëyal alxuraan karim moom tam te boole di ko ci xëyal moom ko kan la war a doon loolu la nit mun ta xam. une femme très saine. très pieuse et, très dégourdie aussi Bayol dara Le plus de il a une force morale qui indescriptible parce que maintenant si vous allez avec elle voyager elle est fatigable peut-être maintenant avec l'âge quand il est préoccupé par un dossier elle me dit on reste par là toute la nuit on ne dort pas.

waaw yooyu yëpp dara da ko ci fekk lépp ay sëri ci lay génn indi ko fii. demal këram melut ni pale daara la ko def te amoon na moyen pour tabax ko pale ba ci biir néegam ba ci kaw lalam daara la peut-être que man ni ma ko gisee mooy yaram ak xaadimatul quran bi muy woote moom la ko yàlla moom moo ko wuy si mu ranta ji ni du gis taar. il n'a jamais été attaché aux choses au luxe euh, euh, c'est-à-dire aux, beaux habits, à toilettes, parures, tout ça. Il sacrifiait tout, tout ce qu'on lui donnait. Il le mettait euh, dans la prise en charge des enfants et dans l'éducation. Celui qui éduque doit d'abord s'éduquer. Donc, tu ne peux pas euh, éduquer des masses alors que toi-même, tu ne te l'appliques pas. Donc, je pense qu'elle, elle a pratiqué la règle. Je me l'applique d'abord avant que je puisse le proposer aux autres. Elle ne l'impose pas, mais elle le propose waaye Maria ngeen Seyda a fait presque le tour du monde pour porter très haut la voix de l'islam, propager l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa C'est également une manière de suivre les traces de son père, Cheikh al-Islam, qui lui avait déjà tracé la voie. inna haadaa kaana lakum jazaa wa kaana sa'yukum mashkuur wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh yooyu jógee Màkka dem Imaaraat ay Dubaay ak yooyu Qatar Qatar jabari buur bi suma xarit la benn bakkat buuru Qatar bi eh, eh, Abu Dhabi itam ba ma demee jabar Cheikh Cheikh Fatima jabar seex bi daf maa ñaan ne ma naa naa toog fii di ma jàngal alxuraan ma ne ko ah yàlla yàlla dafa neex bul watan minal iman bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk man nag suma réew ma gën toog fa ma ma gën a moom yow boo amee doom yi jàngale boo ko indee dinaa leen jàngal ba ma ne naa la utal kenn it ma ut ko andi waaye man suma bopp man suma réew rek laay toog di jàngale ko bëgg suma jàngale fekk ko foofu Elle a également participé aux plus grandes rencontres mondiales consacrées à l'islam et au Coran. À l'occasion d'un voyage en Arabie Saoudite, elle a été invitée à la télévision nationale en compagnie d'un de ses élèves, Ali Harazim, actuellement enseignant et imam en France. Ses voyages en Mauritanie étaient beaucoup plus fréquents vu le nombre de talibés et d'admirateurs qu'elle compte dans cette république islamique. À 82 ans, Seyda Maria Magnas ne se couche jamais avant minuit. Parfois, il reste jusqu'à la prière du matin. Nous l'avons pu constater de nous-mêmes à l'occasion d'une nuit qui...